شمس سموس رمز رؤوس خير الأنيس بالأولياء nuyoo bu bëgg na tedd muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jëmale leen ko ci yéen te di ci jiital kilifa jataay bii di Cheikh Abdoul Fattah ibnu sëñ Mouhamed Mbacké waaye wutu fi tam sëñ Mouhamadou Lamine waaye wutu fi tam Cheikh Moustapha ak njabootu sëñ Mbàkke gépp kon ñooñu la ñuy jiital ci nuyoo bi waaye nag teg ci moo leen kilifa yi fi teew di ñi nga xam ni ñoo ŋànk regroupement yi nga xam ni ñoo bokk ci ay bayil xadim te Modou tudd leen léegi duma ci jaalaat waaye itam di nuyu nag section Touba bi nga xam ne tey jii ñoo amal jataay bii di jataay bu liggéey nuyoo boobu ñu jaarale ki nga xam ni mooy soxna bu Bousso mi kilifa gi waaye seen Diop Maxtaar bi nga xam ni mooy président section bi di sàkku ci ñoom ñu jàllale nuyoo bi ci ñépp kon kàddu yu gàtt lañuy wax ndax sunu teway fi limi wund rek lañ bëgg wax sunu teway fi ñoo ngi ko def ci ndigalul sëñ Mouhamadou Lamine mi jité section yi ngir mu xamal wa section Touba ak ñi fi teew ñep ni liggéey bi ngeen di def ab liggéeyam la di waar woo xam ni dafa féeti ci yeen ngeen taxawal ko ci kon mu bëgg leen a xamal rek ni moo ki yéen yéen a bokk tool bi loolu mooy sunu teewaay kon sunu teewaay jëmmal sëñ Mouhamadou Lamine ngir ngeen xam ni lii ngeen def moo xam section bi la moo xam sous section yi ko séq waaye daayira boo xam ne mu ngi ci biir section Touba waaye nag membre bu dakk carte na xam ne ba ngay dagg carte liggéey bii nga tudd dugg kii sa jëwriñ mooy sëñ Mouhamadou Lamine kii sa wasila nag mooy sëñ Moustapha

kon nak bu ngeen defé li leen sante li leen sante ci daayira yi ba nopi def li leen li leen sante ci ñaari sous section homme ak femme ba tak tay ji li leen sante ci section bi ci at mu ne ngeen koy def kon wacc ngeen ci digganteeg li leen sante ci liggéey bi te ñu yaxal ko ci taxi kon ñu leen ci jaajeufal bu baax a baax a baax liggéey bi rafet na ci wàll yépp ndax liñ fi waroon a xam

mu gën a yokk loolu te loolu fii lu place kon section Touba noo ngi seeree te di ko jottali seen ni wax dëgg yàlla suñu xool sedd na suñu xel dal na ci yéen suñu yaakaar dëgër na parce que Touba nanu yëg ni dañoo am mission ci liggéey ay Baye Khadim bu weesoo def ndigal li waaye dañoo xam ni ñi tuuba nekkee capitale yoonu murit noonu la section Touba nekkee njiitu ay Baye Khadim moy section bi gëna mag moy section bi gëna a yaatu waaye section bi nga xam ni mooy jiitu yeneen section yi topp ci bon dafa war a xam ni nu rek noonu la yeneen section yi doxe ni ngeen doxee nag macha allah rafet nañ ko ñu leen di waxaale tam ñu ngi teewaale nag aussi mbooleem yeneen section yu sori yi yu mel ni ay Tamba ñoo ñëpp tam sama jëm teewal na leen kon daal vraiment rafet nañ liggéey bi suñu xool sedd na ci sant nañ dañu ñaan yàlla ci barke Cheikhul Khadim sunu borom yàggal fi Cheikh Moustapha amal ko ak bëggam defal ko lu kawe njortam ci lim bëggal boppam ak lim bëggal taalibe yi ak lim bëggal askan wi waaye ñaanal ko njabootam njabootu sëñ mohammed yëpp waaye ñaanal ko waaye ay bàyyi Xadim yi yëpp sant nañ gërëm nañ lu manki ci kàddu gi sunu ci ñun la waaye mate na ci sëñ mohammed Lamine salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh